monsieur le maire Djibo Mbaye moomu keroog bi nga xam ne jox na mission ba mu jeexal bu ñëwee soxla réew dañ ne rek moo fa mën a jox muy sëñ neex ñaan keroog ba mu daanoo ba ci man laa ne ko dinaa la fal incha allah daje ak moom ànd ak moom fii sa bët yi tey ànd ak moom ba fal. ba tey ci kiraam kay Baye Ndiaye moom ngeen dégg Pekes muy commerce keroog moo ko jàngal commerce moom euh, daa dëgëroon bopp lool kenn mënut a wax ba mu dégg boo weccee rek day day jaxase weccet wi léeg-léeg ma daaj ko moom mu ci ron comptoir bi gan ji génn tiim tiim ma ne ko boo xamul weccet daa la faat. sëñ neexal ñi borom kiraama yi moo tax Baye Sall dawal képp kuy liggéey lu mel ni moom ca Pekes kum xool sow koy mu daal di pare. laajte fii ci Ngaye FM. min kulli janaatin minal kadidaa. sëñ neexa ngi nii ki nga xam ne képp ku daggus ndima rek moom moo tax. ah taxal foofu ku lu tuyoor bu ne fekkees ba ca xale yu sama loxo jaar aas joo góore yaali mbay sëñ Moodu Thiès FM ñooñu ñëpp ba ci caam Bambadou Ba bàyyiwuma kenn ba ci góor a Touré ñëpp maa leen jàngal téer moom ba ci gone min kulli la janaat min al kandidaat eey sëñ Neex a ngi nii toog bu leen ko werante bul jooy bul jooy bul jooy bul jooy bul jooy damay jooy maa am tey ah, bépp kiraama rek boo xam ni yaakaarul ne dama koy faj fii dama koy faj